Muntaka ma ne euh, euh, c'est le visage de la résilience et de la relance économique dañu toll ci jamono joo xam ne ñu ngi wax waxu relance économique ma ne bu ñuy wax dë waxtaanee rek dëgg ki relancer économie Sénégal tey ki nga xam ne bi nit ñi toog di xeltu moom mu ngi ci action mooy Serigne Mountakha ndax Serigne Mountakha euh, bi nit ñi di xool ban yoon la ñu war a jaar bi nit ñi jàqee ci Covid 19. dafa jóg le 7 septembre mu ne màggal Touba danañ ko organiser màggal Touba ku ne xam na ne ñaari téeméeri milliards ak juróom ñoo ciy génn 250 ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay moom lay générer màggal bu nekk. kon loolu déjà départ la ci économie bu nërmeelu woon moom xam na ne njabootam li ci ëpp ci informel bi la ñu nekk président ci waxtaanam dafa wax ne 98 pour cent de notre économie repose sur l'informel. ma dellu ci mbind mi ne ko Serigne moom moomu xam ne ne quatre vingt dix pour cent ci informel bi ci njabootam la ñu bokk. kon moo tax bu ñuy wax waxi relance économique moom faw ñu jàpp ne moom moo ko sooxe te moom moo tàmbali lépp donc en résumé édito éditorial boobu ñu def ci la tribune tey c'est euh, tout simplement. ce que je voulais ban taxawaay la fas am si l'on sait ren dafa am quand même benn genre inégale répartition des. alors alors mais xam nga xam nga ñun. ci espace bi nga xam nga xam nga xam nga El Modou. Euh, ñu comprendre d' abord. que man taalibe la te li ma yor alalu sëñ Touba la. bu liggéey suñu ñu yaatalul danañu liggéey xam nga lu tax. Mm-hmm. parce que ñañu war a yaatal du ñoom la ñuy liggéeyal. ki ñuy liggéeyal mooy ki nga xam ne jàpp nañ ne moo yor suñu tey yor suñu ëllëg kon xaaruñu ku ñu xàllal te ndax nag man man Bougane Gueye dara mës ta yomb ci man dara mësul yomb ci samay mbir kon bu fekkee ne nga ne jiixi jaaxa dafa am ci liggéey bi man di dëgg-dëgg remonté ma ko parce que entité yi bu ci nekk dafa am ñu ko jiite te ñoom ñu ngay liggéey te waxaguñu ma mm. waaye li biir rek mooy xam sama jikko moo tax ñu ma koo wax parce que xam nañ ne buñ ma ko waxee danaa leen delloo ci kun kàttima ne leen ne da ngeen di liggéey da ngeen di jaayante jaayante leen ko ndax ki ngeen koy jaayanteel moom am na fay bu baax a baax.